lan la ci Sénégal di gagné loolu lepp na len di bayyi ngeen déglu quelques explications yo xamanteni ni def explication yu am solo képp ko xamanteni danaka ci ressource bi ci aperçu wala lula la leer ci mbir bobé ñi ngi di ngeen explication yi nga xamanteni def zircon Sénégal moy les dëkk bi ko gëna a bëri ci monde bi zircon ci minerai bu stratégique la maanaam dafa am ñaari ñaari wàll ci suuf lay nekk ci kaw suuf maanaam dune dafa am ñaari wàll benn bu ñuy wax précambrien friable boo xam ni dafa dafay mel ni suuf day nekk ay russite comme suuf ak bu bu solide bu précambrien solide boobu nga xam ne dafay mel comme donj day mel comme donj xaaw mel ni diamant tuuti kon ñaari zircon yooyu ñoo am léegi bi nga xam ne dafa mel ni diamant dañ koy teug ci walu dañ koy utiliser ci walu bijouterie parce que indice de brillance mok jama diamant sorante wuñu jama 2 et demi le mom 2,2 kon kon jegante nañu trop trop trop trop trop té mom limu limu ëppalé jama limu rawé jama moy mom day fay changer couleur parce que boko tangalé degré température bu nek dafa correspondre ak ben couleur kon mën na jël presque couleur yépp alors que jama ben couleur kessé lay jël amna ay variétés de diamant bleu ak blanc mais diamant du changer couleur alors que zircon buy doog guen ci mine bi da fay marron foncé mais boko ko da fay changer ay couleur day wéx ba melni ni diamant kooku mooy benn bi ñaarel bi mooy euh, bi nga xamné ne euh, mooy bii rus bi moy le friable bobu day melni ni bu ñuul day ñuul à l'origine mais bobu mo ëpp solo yépp mom la adina yépp di xëccio mom la adina yépp di soxla parce que boobu boo ko toggee ba mu ruy bu paasee maanaam 4000 degré day nekk wañ gu weex léegi wañ gu weex googu nag mooy li am solo ci industrie ak technologie maanaam ci euh, technologie yu xaraña xaraña xarañ yi wañ googu dafa doon wañ bu wuteeg wañ yëpp yëpp yëpp nga xam ne dañ ko soxla lool lool lool lool ci xeetu defar courant ci xeetu defar gànnaay ci xeetu defar ay avion ci xeetu defar ay fusée ay satellite parce que dafa am ay propriété yu spéciale yu mu am léegi wañ boobu nag dootul tudd zircon ndax togg nañ ko parce que dafay oxydé wu léegi dañ koy tuddee zirconium waaye benn la rek ak zircon boo ko gisee day mel ni wañ bu inox mais ute na ak inox lool boobu la ñuy dooree parce que boobu mooy bi nga xam ne moo stratégique mooy alalu Sénégal ñu ñooy troisième producteur mondial

mais tout bas comme nous avons fait que nous avons été permis de parler nous pour beaucoup de ces n'yari société euh, euh, RMT Actizir nous euh, beaucoup mous avec MDL nous fait déco grande courte opération puis nous avons une grande courte opération nous avons exploité nous Zirconbi, mais MDL avons une licence nous sommes australiens nous avons une licence or nous nous aurions été or sabordala Zirconbi, nous avons commencé à exploiter en 2013 en 2012 nous avons démarré, mais nous avons tout tuuti retard ci travaux Donc donc 2013 nous avons commencé à exploiter zircon Sénégal donc 2013 nous avons commencé avec le troisième producteur troisième producteur euh, mondial donc fournisseur de l'Europe à hauteur de 25 donc zircon Bou, bu euh, maanaam une avons bien propriété c'est-à-dire que nous ko 1950 degrés du dilaté wu du du ruy day intact du def dara moom mu ngi ruy au-delà de 3000 degrés alors que four yi ñuy lakkee mburu wala four yi nekk ci kër yi 300 degrés ci tàngaay kon wañ googu propriété spéciale boobu mu am moo tax mu nekk lu recherché ci technologie ak euh, ak ak euh, industrie parce que wañ bu tàngee day faral di dilaté mais zircon du dilaté wu day day intact kon léegi fu tàng jël fu mel ni réacteur wala moteur boo ci defaree pièce bu mel ni bu ñàkk fayda bu mel ni vis wala écrou sax zircon rek lay mën a nekk sinon day taweeku wala mu ruy parce que foofu dafay tàkk dafay tànk bu dee réacteur avion par exemple dafay tàkk day am sax safara kon geneen wañ mënu fa nekk lu dul zirconium muy alliage boobu nga xam ni ci zircon bu ñu togg bi lañ koy lañ koy defaree donc loolu moo tax tamit ci central nucléaire yi centrale nucléaire ay usines yu mag la yoo xam ne dañ ci lu defar courant bu bëree bëree bëri bëri bëri parce que uranium moom moo koy xàmb bokkal ak Senelec bi nga xam ni euh, lu jóge ci pétrole moo koy moo koy xam muy muy fuel wala wala diesel ñoom uranium la ñuy utiliser benn minerai boo xam ni fukki gramme uranium day génnee tàngaay bu tolloog une tonne pétrole boo lakk kon lu tuuti ci uranium moo mën une tonne pétrole léegi uranium bobu nak dañ koy sànni ci ay mbar ay tube en zirconium yo xamni zirconium la yu gudd nga xamni day creux ci dig bi donc mom lañuy def ci cœuru réacteur nucléaire yi nga xamni mom moy mooy courant parce que ay pax mo ci nek yo xamni ne dañu jël ay tube plusieurs mètres diko ci dugal pour combustible bi brûler mu générer chaleur bo xamni day indi day defal courant donc parce que Europe li soxla ci courant dafa bëri kon lool ñuy soxla ci courant yooyu yépp amul Ben centrale nucléaire bo xamni ni mën na utiliser uranium am te defu ko ci mbar bo xamni zircon lañ ko defaree muy zirconium bobu kon sans zircon Ben centrale nucléaire du fonctionner kok muy Benen qualité euh, propriété bo xamni dafa tax zircon bi nek lu stratégique kon tey ni Europe suñu amone rupture fi Sénégal rek sen 25 fi lay jóge courant dafay daal di manquer foofu pour wax la ñun pogne bi ñu am. ci ci ci wàllu minerai bu stratégique boobu te technologie yu xarala yi mënoo mënoo mënoo defar fusée walla avion walla satellite walla centrale nucléaire walla yenn xeetu gànnaay ay missile balistique walla de croisière walla yenn xeetu avion yi munoo ko defar te amoo amoo zirconium kon loolu dafa ama ama ama am solo ba nga xam ne te ñun ñooy troisième producteur mondial de ce minerai nga xam ni jaayoon nañ ko déjà australiens mais européens yi soxla nañ ko soxla boo xam ne ñoom dañu dugg ci ci joint venture bi ñu tuddee ko grande côte opération moom la ñuy exploité Diogo euh, depuis 2013 te exploitation baa ngi continuer ba tey jii nii donc loolu moy, moy, moy, avantage du Sénégal ci minerais stratégiques. léegi nag gannaaw loolu lan Sénégal di am ci li nga xamante ni mooy ressource di zircon ba léegi dañuy wëy ak. Clédor Sène exploitation zircon ci fi mu am ci ci Sénégal le Sénégal du ci am ben avantage du 10 pour cent la ci am premier problème Sénégal ba noppi dafa am ay minerais associés yoo xam ne duñ ko aussi important que le zircon muy ilménite bi ñuy wax titane nga xam ni teneur am moo zircon zircon bi 2 le euh, euh, titane euh, titane bi ngi 66 donc il y a ay ay minerais la yu am importance bu am solo ci technologie de pointe ak euh, nouvelle science yi wax euh, nanotechnologie té lolu Sénégal du ci am lim ci wara am en plus euh, des exonérations fiscales donc lolu le problème Sénégal son code minier c'est-à-dire les termes de l'échange Nous, ni ñuy suñu alal manam 10 lañu am doxandéem bi am li ci dess yépp nek ci lolu moy tous les régimes qui se sont succédés parce que loi de loi loi bi mu ngi commencé 98 ba ba en 2016 y a eu la loi de 2003 ça reprend les mêmes dispositions en termes de partage 10% bi changé ou te dañ ko uniformiser euh, malheureusement au niveau de l'UEMOA donc les régimes africains ont manqué souveraineté ba ba ba signer lu mel avec les bailleurs de fonds 10% de sa ressource suñu koom comme dafa yokku ñi ngi zircon amna na ñafurang zircon amna des jogote amu fi won ñetti cimenterie mo fi am légui te ben mo fi nous te ci dal dëkk bi gënoon neex ay xewal ñi feñ feeñ bu ne mais tay la dëkk bi gëna metti kon bu ñuy endetté wu lolu bañuñu ko mais mu nekk lo day impacter ci nekkinu askan bi ci ci ci jàppandalu dundinu askan bi mais loolu yëguñu ko kon dafa mel ni bor boobu ci dundinu nguur gi lay féete te loolu ñun askan bi ñoo koy gàccoo ñoo koy gàlloo kooku lu ñaaw la parce que dafay gonfler le service de la dette maanaam la ñuy natt at mu ne pour fayee ko suñuy bor loolu dafay yokk dafa jóge ci 24 pour cent euh, dem ci 30 pour cent te nee nañu en 10 ans lay mën a wàccaat ba 24 pour cent kon fii ak fukki at service de la dette boobu manam liñuy nat pour fay suñu bor mënuta sax wacc ba tollu fi ñu ko bàyyi 2014 lu lu lu doy war la économiquement ci jamono ji ñuy wax waxu émergence ci jamono bo xamni ñun ñu ngi am ay kom kom lu melni zircon bi lu melni or bi lu melni gaz bi lu melni pétrole bi ba nopi ñuy dolleeku ay bor loolu ba nopi di signé ay contrat tous les jours loolu lu yéeme la donc ça veut dire que xaliss boobu ci nguur gi la jëm jëmul ci askan bi. donc yene ko déggandoo yaakaar na ni lepp luy leeral Clédor sen def ko ci mbir bi di zircon ci exploitation bi ci di Sénégal di ci am. ak li muy jëriñ loolu lépp yaakaar nañ ni leer na ci seen bopp ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.